Sénégal ñëpp bég nañ ci yow ca kaddu ya nga wax te la nga ca jëfee ak ña nga ca dox yi ñëpp bég nañ ci demu mu gën a point de presse wax na mu nekkoon foofa wax ca kaasal waa prison ba wax nit faaw ñu jël fa ay matukaay waaw ca prison ca prison ba ndeysaan nam fa nekke woon nag lim na fa sax ay tur yoo xam ne ma jàppoon naa ne xamu leen waaye nekkee fukki fan yam fa def moom ma ngay jàngat ma ngay def mbir xam nga jàmbaar la tubaarkàlla gaynde la arama nga ñoom rek ca baa nga septième gaar moom journaliste la waaw bokkul ak ñoom la mhm. journaliste boo ko fekk. Mhm. day am charisme bu nekk ci moom. Mhm. moom ña ngi ko tëj kaso. Mhm. tarul peine bi ah. mais. lu mu nettali ak lu mu jàngaat. moom lay xool ci ku bëgg yor am réew. te mu ne gars yi gars yi dañoo yaakaar prison la ko yóbbu waaye dafa dañ ko yóbboon mu doon noppaluwaale. <laughs> dama ne. Ah. xale yi ku yebu mooy leen. waaw muy. Bougane Gueye Dany ak Barthélémy Dias. ñoom ñaar. sàmm sa kàddu seeni kàddu dama koy topp di ko xool Barthélémy Dias nee na je rentre en prison je sors sans rancune sans rancœur man nag loolu laa ko bëgg a laaj Bart lan mooy loolu <laughs> waaw waaw je rentre en prison je sors ah. uh-huh. sans rancune uh-huh. loolu xam naa ko uh-huh. doo jàppal kenn maanaam bëñ bu xonq mais sans rancœur c'est ah, quoi sans rancœur loo bëgg a wax foofu Barthélemy Diaz je rentre en prison mhm. je sors mhm. sans rancune sans rancœur mooy lan hmm. loolu loo bëgg a wax foofu Bart ah, Bart na la tontu de de de tontul père bu baax su <laughs> soo àdduna bépp koy seetaan ba père Mbaye Ngoné mi ngi lay laaj Bart <laughs> waaw waaw cette phrase là uh-huh. sa définition ah. je rentre en prison. je sors. sans rancune. sans rancœur yow yaa ko wax de. ndax man damay suivre. loo ma sa wax mi ngi ak man man damay capturer di denc di xool. di ubbi dictionnaire bi. di xool moo bii mu wax lan la. loolu laa njëkk topp ci doomu aadama dama koy topp. Bougane Gueye Dany. su nekkee fële càngat la. foofu xanaa xamoo ne ñu bari ñu ngi naan kaso. mais ku dugg ca biir. doon naan yaa ngi ci sëg yi foofu ay sëg la de mm. du kaso de ay sëg la mm. ay sëg la sëg mm. waaye ay sëg yoo xam ne dangay xam li nekk sa ginnaaw di dégg li nekk sa ginnaaw ñu lay nett li nekk sa ginnaaw mm-hmm. nga xam say soppe mm-hmm. di xam say noonu mm-hmm. fi mu ne bu gaan mu wax ko mu bañ koo wax mais ba mu nekkee ci biir xëy na ñàkkul am na ñu ko nettali ne ko diw nee na. Mhm. yàlla boo génnati. waaw mënu ñàkk. fii nga dugg. Mhm. yow yàlla boo fi génn. mënu ñàkk. yow yaay kan. yow nii nga mel. Mhm. yaa nañ ci damm caabi ji. nee daal jégal na ñëpp. waaw. na nga ko doon toppee. waaw. outrage. waaw ña taxawoon. waaw waaye takk der ya. waaw neen wax dëgg yàlla ci li buggaan wax. ci kàddoom. waaw bi ñu tax doon koo layal. ni ko outrage amu fi tey nag mu ne. benn chaise bu nekkoon fii ci salle bi. waaw président de la république dugg si. waaw day jug jox ko mu toog. day jóg ko mu toog mu toog ndox warmaal na ko xam na ne mooy njiitu réew mi te nangu na ko. mooy njiitu réew mi. ok moom la président de la république. loolu la sunu borom dogal. waaw Mbaye mhm. ma wax la tuuti loo xam ne kenn mënu koo dindi. ah bisimilah. kii di Ousmane Sonko. Jomaay mhm. mii nekk président bett na ko. Mhm. kii di Jomaay. moom moomu nekk président président gi bett na ko bett na ko. ndax li tax mu bett ko.